ñu aw ndax booy dañoo nekk comme ni ma leen ko waxee fii bu la war la foo taxaw foo taxaw booy ñoo ko nekk noonu ci talbaay bi ñu ñu génnee di kaasaat léegi booy di ñoo déterminé wu dem ba tey booy di ñoo déterminé wu nee nañ xeex bi du jeex am nañ añ am nañ reer am nañ ndékk saa yu ñu xëyee dañuy xeex ba projet bi jeex noonu man tey su ngoon laa waroon ñibbi sama séjour tey la waroon jeex xaw ma ndax dañuy prolongé wala dañuy ñibbi dellu Dakar waa ticket aller retour yi jëndoon moom sans limite bi ma ànd ak Ngoné Saliou moom élève de l' autre côté depuis trois ñu ngi fi di nga xam ne nii moo fi jot a xew nii ginnaaw li moo fi nekk nii di daw loolu si ginnaaw loolu moo fa taxawee foofu beneen avancé waaw mu ngi noonu loolu moo xew si ginnaaw asaw ma ne ko ma gënee ko ko bëri ay ah! na en tout cas ay waaye ne bi vinaigre bari noonu jëlal pour ginaar kese barki yàlla simi la simi def simi mën na kaa dindi suñ dóoree gërëm naa la kër moo rek ma laal sama vinaigre waaye bëgg yaa ngi jooy gisatuma maa ngi reculer ay en tout cas ah tëll tëll bi ay sar na lool ma retourné waat ci garab bi fi ma toogoon pour mun leen jox image yi ama zoomal leen gisee yaa ngi gën a enseigné téere yi xeetu grenade lacrymogène ngi gis noonu

yaa ngi enchaîné tiir ngi gis noonu police a ngi enchaîné tiir yi ngi reculé boo yaa ngi reculé conseil lu ñuy wax ne ko maa koy jottali ah damay nee na ay cartouche réel la cinq cinquante six ça fait trois kilomètres deux cents bu laalulee dara 3 kilomètres 200. lii mais bu leen may jël de. non non non non non non bu ko jël bu leen jël kanam. non jël ñu kanam gi de teg ko suuf rek. léegi ñu ne lii. Euh, sax yi takku na. calibre 556. Ah calibre 156. non 556. 556 moom moo nekk nii. te lii nii nii la fi nii la fi barewee koy gis nii calibre 556 nga ne boo ko tiirewee mën a def. 3 kilomètres 200 la woon. 3 kilomètres 200. 3 kilomètres 200. 3 kilomètres 200. ay barrière la nii. donc lii ay barrière la. donc ñu xam ñu ndax lu fi yàgg la nag. waaye wala ay barrière la. dëgg la kon loolu ci euh, ça fait partie ci. loolu la ñu doon informé ñu gis ay bal. mu ñu ay reel la mais bëggul ñu dégg baatam xamuñu nag lan moo ko fi indi wax dëgg yàlla nag xamuñu ndax si manifestation bi dafa ñëw wala loo xam ne lu fi yàgg la tey mu ngi noonu en tout cas xeetu grenade lacrymogène saf na ban heure mooy jot. 13h42. 16h42 13h 15h 13h 13h. fii ak dama du fenn nañ heure bi naaw na waaye heure bi demagul. direct la 13h42 wala 43 xool leen seen montre tey la lundi wala maa di ah, la sax maa ngi jaawale dali maa di mai. àttee li ñu waroon àttee ki nga xam ne Sonko ak Adji Sarr chambre criminelle mais dañ ko mujjee renvoyé ba le 23 mai. Alioune Sall bàyyi mu mu dikk bi bëri na trop gis ngeen noonu bal yi yéen ngi gis noonu bii moom dafa mel ni comme ay bal réel mun na tamit loolu la xamuñu fekkee nag leneen la waaye daal mu ngi nii expert en bal yi war nañ ci mën a wax